man la je serai candidat à l' élection waxoon naa ko de. gars alias eh kii day caaxaan artiste day wax rek day wax rek may wax gars yi faale wu ñu mag may wax gars yi faale ñu rek may continuer rek ba ma gis benn site reprendre ko sama ñaari costume bu ma sol ak sama chapeau bi tak ma gis TFM di wax sama candidature Pape Cheikh Diallo ma ne bon maintenant bàyyi ngeen ba ba ah bàyyi ngeen si man maa daaneel ma Bon, parce que tu sais, Mahou, je suis un intellectuel aussi. Ce que les gens ne comprennent pas, je suis un intellectuel, je suis un communicateur. Je sais ce que je veux. L'histoire retiendra. Même bu dee conseil constitutionnel nangul sama candidature même bu fekkee ne j'ai pas fait de campagne mais l'histoire retiendra aujourd'hui que y a que deux musiciens au Sénégal au Sénégal ñu mus a wax ne dinañ nekk président c'est Youssou Ndour et Alias mu nekk kaf mu bañ a nekk kaf mais loolu am na ba pare Youssou Ndour moo taxaw fii fekk ma ci boole 2012 mu ne sera candidat il a été calé au conseil constitutionnel à part Youssou Ndour je crois Alias Diallo doom moo taxaw fii tey mu ne il sera candidat. mais est que euh, dafa am parce que aussi xaalis. xam nga des fois da wax da ngay dégg musicien ne dama def tournée Europe dafa bare. dem naa tournée xam naa naka la naka la nit ñi di demee Europe du dégg bon parce que nit mën na dem Europe alors que je tu n'as jamais joué à Guédiawaye mais il faut s'enraciner d'abord après s'ouvrir hmm. waaw yow ngay bakk Europe yow sa dëkk bi sax xamuñu la te moo fi bon. Euh, xaalis bi dinaa ko am parce que campagne yi fii yëpp nu muy dem muy amee yëpp xam nañ ko même le président il est financé. il est financé. alias il sera financé loolu am la dëgg il sera financé y a y a des gens qui seront derrière lui et puis man je ne pas un candidat déjà les sondages m'ont donné 30 pour cent. en euh, lu tax. tous ces à part Macky peut-être le président parce qu'il faut le respecter mais ñi présenté yëpp man région yi may def defuñu ko les actions qui me prennent aujourd'hui association ñuy xam alias xamuñu lan alias ba avec son orchestre en campagne ayo ne ne du ayo alias def ayo ne ne Sénégal yëpp ñoo ko xam kon aujourd'hui ma maa ëpp si ñoom ñëpp le président Macky maa avantage dam leen devancer parce que man j'ai joué dans les treize capitales régionales nekk si xolu gars yi parce que Youssou c'est ce qu'il avait compris en 2012 eh, eh Youssou aujourd'hui c'est le mbalax mais la salsa aujourd'hui c'est alias kon lu Youssou osé def ko si mbalax alias a osé le faire en salsa ça c'est la salsa qui gagne et 30 pour cent déjà moi je me vois au deuxième tour xaw ma nag kan mooy nekk deuxième tour avec maam. mais dugal sama Facebook nga gis ma lay wote yow lay woteel. dina bari ñu la soutenir. et puis wax ma la benn affaire le président bu mu déggee le président Macky Sall mhm. bu mu déggee ni que Alliance est candidat. il a commencé à à à non à parce que dafa dem jam ñaajo mu commencé di fecc salsa. Ah. ma gis ma kii di yëngal mbagg mbagg bi di yëkkati loxo yi ma xam na man maay fecce noonu salsa ma ne kii man lay voilà man lay titiyee nii pour en cas bu deuxième tour jotee ma jël report de voix il est de charmer mais mais mais mes électeurs mais Macky bi le président dina gis ku ko dàq fecce si si campagne bi parce que man orchestre laa yóbbu ki dina gis ku ko dàq solu costume si si si si costume noir lay sol ak bleu man yeneen lay génne bon bu boobaa on sait jamais bu deuxième tour jotee oh là suma dina dinaa toog ak moom ñu waxtaan ñu seet qu'est-ce qu'on va faire parce que quand même bon bañu ma ko aussi c'est c'est le président de tous les Sénégalais